comme moo di euh, Cheikh Bara Ndiaye Cheikh Bara Ndiaye ndax xamee nañu ko lool euh, fa nga xam ni itam mooy journal Walf Fadjri mu daal nekk li nga xam ne que moo di chroniqueur ginnaaw ba nga daal tegewoon loxo euh, juróomi fan que juin atoupa 2023 moom ki nga xam ne que moo di Cheikh Bara nag jàppale ni itam jamono ji man kon tawat na lool ba daal si yegg si sukkandiku yenn ñi nga xam ni itam ñoom ñooñu ko daal di xamal bokk na si seen web moom ki nga xam ne que moo di Cheikh Bara nag donc dafa daal di tawat justement ma ni kon njabootam rek ñi ngi daal di alerter jëm si wàllu wunu mel jàppale ni itam toll na si nga xam ne que moo di fukki fan maanaam du jour ki n'a xam que Modi Cheikh Bara nak si diwaanu ko pavillon spécial donc dal di yobou la ko waral nak di santé mu anton ko pour mu dal di tok ce casso ba moo tax daal di ko pavillon spécial depuis le 16 juin ba la daal di entamer ben grève de faim manama euh, xiifal ni du dal di lek ben n'a ramené ki na xam que Modi euh, Cheikh Bara nak jamono ji tawat na lol ba jay ko yobou fa na xamni de moy zone ko tribunal bu Ndakaaru pour le moment li nga xam ne que moo di saafami nag maanaam njabootam li ñu daal di bëgg rek moy na ci autorité religieuse yi daal di wax manam kilifa diine yi pour ki nga xam ne modi Cheikh Bara mëna a daal jotaat li nga xam ne mooy liberté am ndax jàpp leen nak jamono ji li ñu daal du dund métti na lool jëm ci njabootu ki nga xam ne modi Cheikh Bara Ndiaye donc japp leen tam lool lepp nak li nga xam ne modi mom frère am ñu ko daal di xamal la ñuy daal di wo di autorité yi pour ñu daal ci jël seen ko pexe jëm ci ki nga xam ne modi di Cheikh Bara baxaay balaa yu fii di daal di li nga xam ne modi dégénéré moom ki nga xam ne modi Cheikh Bara nek chroniqueur fa nga xam ni itam mooy zone Walfadjri moo daal di tawat loolu ba daal si yegg mi ngi si pavillon spécial donc jëlee nañ ko sa cave tribunal ba justement euh, toll na si fukki fan nag mu daal di sóobu si grève de fond daal di koy jàpp juróomi fan si weeru juin atub 2023 alors justement euh, euh, Arfan justement jëm si état ki nga xam ne moo di Cheikh Bara c'est évident vu son âge ak aussi li nga xam ni itam peut-être doona ko daal di incarné ak tey fi nga ko daal di indi tey jii alors man damay commencer di di ko masaw d'abord euh, Cheikh Bara mm. euh, parce que kilifa la euh, aussi dafa am ay taalibe yu nekk si ginnaawam mm, aussi mm. Euh, borom euh, kër la c'est-à-dire mm. que un père de famille mm. donc moo tax ma damay commencer di ko masaw euh, parce que euh, coono la lu mm. muy dund ni bo xolé ci prison ba paré nga boole ci ihifal et aussi nga jappé ni ci jaay doolé lañ la jappé jàppee aussi sénégalais yi gis ko hein, bu fekkee bu ñu naré remonter les faits yu tax ñu jàpp Cheikh Bara fallu franchement man je ne vois pas lan lañu jappé Cheikh Bara ñun sa tok nañu ay giir di Mm. Eh, de poser au César des questions. voilà nous eh, mais nous, que c'est l'appel à l'insurrection que fait motif là, mais aussi souvent nous le cadre de Cheikh avons eh, man dama war nañ ko may hein, liberté provisoire mm. parce que kilifa la aussi vu son âge mm. Eh, man dama jàpp ni yoon wala juge bi war nañ ko mën accorder eh, liberté provisoire mu dem seeti yaramam ne ko liberté provisoire da nga koy acquitter carrément des faits. Hmm. mais da nga koy may liberté mu dem faju ji. parce que on sait jamais ah hein, sëñ Fallou eh, ñun Sénégal dañuy souvent dañuy am genre problème boobu problème bu mel nii. Hmm. mais da nga koy sagané hmm. da ngay jàpp ni ba léegi. Euh, waa dara dalu ko ñu on a tendance à ñun nekk ci posture bobu ñi sagane nit ba euh, yalla def lu gën ñu ne ah pourtant euh, waxoon na lii ak li mëno nañu def li voilà ñu ñu koy alerter mais bu bo gisé ay médias yu melni ni Seneweb di ko alerter dafay baax pour autorité xam hmm. parce que les les autorités yi dañuy nekk seen kër du xam effectivement lan mooy xew ci prison yi seen hmm. fàllu hmm. donc bu amee presse yoo xamante ne dañuy dañuy génne communiqué yu mel ni wala dañuy dem ci prison yi du xool ay yan anam euh, prisonnier nekkee ci prison yoyu et aussi euh, ku mel ni Cheikh Bara aussi euh, bo waxee Cheikh Bara am ndoxoor bu mu nekkee chroniqueur feulé ci mm. et aussi chef religieux la aussi mm. comment de je de famille la tabaski baa ngi ni famille il faut aussi euh, famille bobo euh, ils ont besoin de te hein. ils ont besoin de de euh, prison maintenir ko prison bi ba jugé juger ko do ko juger defoo ko dara euh motam mom mom tamit gis nañu fi ay réussir tok ci prison bi di xiifal ba ñu xëy acquitté la libéré la moo tax ñoom boo gis léegi c'est mel ni mécanisme boo xamante ne dafa dafa bokk ci xeex bi ah fàllu da ngay gis nit ñu tëj ko mu préféré xiifal xiifal boobu amaana sa euh, voilà du ñëpp ñoo koy réussir mais am na ñoo xamante ne dañ koy réussir carrément ñu dem ba ñu may leen ay liberté provisoire wala ñu bàyyi leen carrément ñu dem yoon voilà stratégie la même bu fekkee stratégie bi voilà ça reste aussi à prouver Cheikh Bara jusqu'à la preuve du contraire japonais dañu japp ni jaay doole lañ ko parce que ñun ñu Cheikh Bara lan lañ koy exactement parce que man gisuma ko gisuma preuve wax ah. appel à non appel à l'insurrection euh, atteinte à la sûreté de l'État appel à euh, l'insurrection facteur lañ bi wax yow bu on a on a visionné tous les vidéos maintenant Cheikh appel à l'insurrection nga Cheikh Yérim si il faut tirer 90% des Sénégalais et continuer avec 10% pour nous instaurer l'état de droit dans ce pays. mais il s'est expliqué par ça c'est appel à génocide loolu est appel le génocide la hmm. Sénégal bu dans un état syrien Voilà le président Macky Sall bañ président du Sénégal bu que le président moo nekk Cheikh Sek insaini non seulement dañ koy retirer la parole publique mais du ci euh, euh, publiquement et aussi da koy fekk ci kasso bi parce que mënoo japp cest à que c'est c'est japp deux poids deux mesures deux poids deux mesures euh, quand il prend 17 millions de sénégalais il faut tuer 90% des Sénégalais. S'il faut tuer 90% euh, des Sénégalais pour continuer avec les 10% pour que nous vivions vivre dans un état de droit. Bon, il 17 millions de Sénégalais. Il faut tuer 15, 15 millions, euh, et quelques millions de, de personnes. et continuer avec 1 million 500 de Sénégalais dans ce pays pour continuer à vivre dans un état de droit. mais ici, mais alors que Cheikh Bara lu mu Ken kenn gisul appel à l'insurrection non franchement on est dans un état boo xamante ne bu ñu waxee dëgg te yàlla tax ñu bañ a far fen dañuy wax ni que Cheikh bi Cheikh Bara ak appel à l'insurrection franchement te ñu gis fi ñu wax pire Cheikh Bara ba léegi ñu ngi lambar lambar yi ci bi ay Moustapha Diakhaté chaque jour bu ñu waxee Amet wax ay Ahmed Suzanne Camara bu ñu xëyee njombe la wax Cheikh Yérim Sek bu ñu xëyee njombe la wax Mam Mbaye Niang bu ñu ay njombé lañuy wax tay yoon procureur mosu leen woo il faut que Serigne Fallo il faut que nañ bàyyi manipulation bi di yoon yoon dafa wara euh, nek à l'équilibre c'est-à-dire mm. que baña lak dor yoon chaque fois dañuy xëy dina wëy euh, force restera la loi wëy yoon dafa moomu boppam yoon moomul boppam fii ci Sénégal bu yoon moomoon boppam. mais quand on essaie d'être euh, indépendant quand même. non la justice n'est pas indépendante dans ce pays. loolu mooy wax ji mais am na ay acquis. la justice n'est pas totalement indépendante même si am na des magistrats souverains. loolu on on n'en discute même pas. am na ay magistrats yoo xam te ils sont souverains ils sont libres. Mais la majorité des magistrats sont, sont pas libres. Ils sont pas libres. Euh, euh, si Kabi, si Kabi, qui n'a jamais comme Modi Cherbar, peut-être l'autre Cherbar exactement. Enfin, nous avons que il n'a jamais que Modi libéré. Mandama En tant que nous avons poursuivre n'a jamais Modi enquêté. Alors ma position est claire. Dama Japoni, c'est une fallo. D'un coup, on a liberté provisoire. Madame Fadjoudi. Hmm. C'est le minimum qu'on peut, hmm. faire pour Cherbar. Mm. Quand nous avons libéré que sans jugement, mais que liberté provisoire. nit def na fi lu gën a pire Cheikh Bara ñu may ko liberté prison ana Bougazeli <laughs> Bougazeli anamu l'homme des faux billets Bougazeli lañ jàppee flagrant délit flagrant c'est-à-dire ko loxo ci poos mais taxul may nañu ko liberté provisoire ñu ne dafa jabet <laughs> nañu bàyyi maslaa bi Cheikh Bara wax fii lu gën a simple nga jàpp ko dugal ko ci kaso bi mu ngi nii yaram yaram bi xaw a jagadi nga ne doo ko bàyyi mu dem seeti docteur nga ne da ko yóbbu chambre spéciale lan mooy chambre spéciale bàyyi Cheikh Baara mu dem faju ji avant que ça soit trop trop tard ñu jàpp fii Bougazelli loxo ci poos faux billet laa la wax faux billet nga may ko mais taxul nga may ko liberté provisoire parce que da nga ne dafa jabet ah léegi Cheikh Baara euh, moom dara de doo ko bàyyi mu dem faju ji dañu bàyyi caaxaan euh, caaxaan euh, baaxul euh, ginnaaw ki nga xam ne que moo di Cheikh ñu koy masawu baax baax moom ki xam ne que moo di bi sëñ Bara ni daal di yegg si leneen bokk